batay mi ngi wax rek ngëne li ragal yalla mu ne yonante bi am na ko doon denk ne ko denk na la ragal yalla ndax ragal yalla mo ëmb lepp lu yewu aduna ko alakhirah ne ko denk na la ngay bari la tudd yalla ak bari la jang alquran ndax mu ne ko saxo tudd yalla ak jang alquran day tax yalla may la leer fi nga nek ci suuf si may la daraja ak tur foofee ca kaw ci asamaan mu ne koy del sàmm saw làmmiñ bañ cee wax lu may lu baax boo soo saw làmmiñ ba lu baax rekk ngay wax mbaa nga noppi kon daaneel nga saytaane jël boo xam ne du jógate ba mën laa gañe